léegi dóor lekk ma jël ñëpp tas. même oh, taxawaayu préfet bu ndakaaru Alioune Badara Samb di firndeel ñàkk sàmmoo gi ci chartum ndeyu réew mi nguur gu war a tëddee njaaxaanaay ak ñàkk aar taskatu xabaar yi nga xam ni seen liggéey ci réew mi démb service public la te chartum ndeyu réew mi moo ko tënk. ci article 8 bu constitution bu Sénégal la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles et fondamentales les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs ces libertés et droits sont notamment les libertés civiles et politiques liberté d'opinion liberté d'expression liberté de la presse liberté d'association liberté de réunion liberté de déplacement liberté de manifestation ak yeneen ci ay liberté ak àq ak yelleef mu mel ni nag kon li xew démb njumte gu rëy la bu préfet bu ndakaaru naam sax yenn ci ay boroom xam-xam màcc ci wàllu yoon ñu ngi yoonal ni ba dara sàmb li mu def droit nangu na ko waaye nag loolu jaaxaluñu loolu moom jaaxaluñu li ñu jaaxal kay moo di lan moo tax waxtu woo xam ni rekk réew mi yëngu na te taskatu xabaar yi war a taxaw amal seen liggéey faw rekk taxi der yi xañ leen ko loole nag nekk laaj boo xam ni foo tourné ci réew mi jamono ji ñu ngi koy laaj Sénégal nag démocratie ak état de droit bi muy woote jot nañu xoolaat ko bu baax ndax bu fekkee ni askan wi ci seen wàllu bopp amuñu sañ-sañ ci seen bopp amuñu ko ci seen biir ñoom askan wi waaye amuñu ko tamit ci réew mi loole day nekk loo xam ni day ëlëm xel yi loolu moo waral sax waxtu woo xam ni xaatim nga wala nga yëkk ay kàddu ci liy xew ci réew mi la cay topp rek moo di dañ lay jàpp ni la ràpp tëj réew moo xamante ni nag yoon tëddeewu fa njaaxaanaay waaw réew moomu ndax jàmm dina fa am mu nekkoon seen chronique coup de gueule fii ci Equivox TV